jërë ngeen jëf yéen ñi nga xamante ni yéen ay seetaan réew mi TV saa su nekk si seen émission actu réew mi comme ni ñu koy defee actu réew mi nekk dem réew mi ak bitim réew donc tey nag sujet yi nga xamante ne andil leen ko ci biir émission bi dinañ waxtaane wàllu violence bi nga xamante ni moo lëmbi biir Sénégal jamono ji rawatina ci wàllu làmb ji ak nawetaan yi dinañ wax tamit lu jëm ci location bi ak bailleur yi ak dogal yi nga xamante ni état bi jël na ko digal ko ci mbir moomu waaye tamit ci euh, Macky Sall mi nga xamante ne yëkkati na ay kàddu ginnaaw ba mu doon euh, présider li nga xamante ni mooy septième forum international euh, ci wàllu paix ak sécurité ci Afrique te mu yëkkati ay kàddu jëmle ko ci niñ doxalee ci wàllu Afrique ak nouveau nga xamante syndicat yu éducation yëkkati nañ ko loolu moo nekk li nga xamante ni ko waxtaanee tey seen émission actu réew waaye dama ci wéet saa su ne dama ci ànd ak uh, sama chroniqueur uh, muy uh, monsieur Fall donc l' exceptionnel monsieur Fall ñu nuyu baax baax. Mor Fall maa ngi lay nuyu di la sant di nuyu internautes yëpp nag di kontaan nag ci li nga xamee ne rek moom lañ dellu siwaat fii dégg nga pour càmbar li nga xamee ne moo xew ci biir réew mi. li xew ci biir réew mi donc dañ koy tàmbalee ak li nga xamante ni moom mooy wàllu euh, à la une de réew mi quotidien euh, caution locative l'État menace les bailleurs euh, toujours à la une de réew mi quotidien détournement au CMS une caissière accuse un charlatan de lui avoir soutiré 40 millions de francs CFA toujours à la une de réew mi quotidien organisation des élections l'État débloque 22 milliards décès Badara Ndiaye ce qui ce que dit l'autopsie parti sport bu réew Réumi euh, quotidien euh, le PSG de Gana écrase Bruges euh, la la passe la passe de 6 pour Mané et Liverpool Rufisque et Dara les navétanes arrêtés nécrologie décès de Lamine Dieng loolu moo nekk li nga xamante ni moo gën a fës ci Réumi quotidien donc dañuy dem rek ci li nga xamante ni moom mooy wàllu sujet yi bu fekkee amoo benn kii booy def rek ci une yi nga xamante ni génn tey ci Réumi quotidien waaw li nga xamee ne moom laa ci yi gën a euh, jukki ci biir euh, réew mi quotidien moo di euh, mbirum luyaas bi nga xamee ne rek dafa lëmbale Sénégal depuis bi ñu juddoo ba léegi ba ñu toog état bi di ci am courage pour war a nag jéem a fexe ba dugg ci diggante bailleurs yi ak locataires yi ba bugg fexe pour assainir ko loolu yëpp dafa bokk ci li nga xamee ne rek mooy organisation bi nga xamee ne secteur boobu nga xamee ne kii luye kii luyaas kii wut luyaas li nga xamee ne rek noonu lañ war a atte ci seen diggante moo nekk nag mesure yu courageuse yoo xamee ne war nañu ko mun a indi pour que rek euh, askan bi mun a féex ndaxte dañ toll ci jamono boo xamee ni bu xat bu métti jamono boo xamee ni économie bi dafa sooxe jamono bi dafa nekk ne fan yi temps yi kenn xamatul fooy teg sa tànk mooy boo bëggee soxlaa lekk soo wutee wut dëkkuwaay sa diggante ak sa morom sax gis nga nit ñi lekkante bi nekk ci ci seen biir ak euh, secteur yi nga xamee ne yëpp a ngi yëngatu donc dafa nekk loo xamee ne ci njeextalu at bii mm-hmm. ak at bii ñuy dugg si dégg xam naa ne war nañu nag mun a daal di xoolaat suñu bopp tuuti di xam ne nekk li ci kanam du yomb. xam naa dinañ ci ñëwaat euh, ci deuxième ponk waaye euh, fi ñu jëm ci li nga xamante ne moom mooy biir réew mi li ñu naan euh, on va droit vers le mur ci wàllu violence ko dafa lëmbi biir réew mi jëmle ko ci wàllu lutte bi yi moom ko wax ne dafa bëri li nga xamante ni moom mooy violence fan yi lutte bi la ñuy faral di gis donc ñu gis ne jamono jii ndaw yi ñu wax ne Sénégal ndaw boo xamante ne dañ ko naw ci àdduna bi boo dee Europe boo dee Sénégalais dañ leen naw mel ne loolu lépp dafa salfaa ñëw ndax léegi façon Euh, violence bi ñu gis ci jeunes yi léegi euh, ba sax jamono ji yenn euh, activité yu ci mel ni Rufisque fu ci mel ni Ziguinchor yi ak yenn dëkk yu bëri daanaka dañoo si sursoir li nga xamante moom mooy nawetaan yi ba sax ONCAV ak ODCAV ñu jël ay dogal dañuy arrêté yenn activités yi donc yow proposition bi yow gis nga ko li nga xamante ni moom moo jëm ci wàllu violence yu bëri léegi yow ba jàng ngay def ci loolu waaw xam nga li ma lay bëgg wax rek moo di que nawetaan yi bi nga xamee ne ñu ngi koy euh, euh, indi ci Sénégal suñu papa bi génn euh, ak suñu mag bi nga xamee ne génn na ci àdduna mooy Lamine Diack moo ko fi indi woon te dañ doon bëgg a fexe pour que jeune quartier bi ak jeune quartier bi ñu gaaw mën a àndandoo booloo def échange mu dem a dem ba nga xamee ne ba ci même ci politique bi sax am peu mbiru par par loola dem nañu ba nga xamee ne boo fekkee ne da nga bugg a exprimer wu da nga bugg a daal di euh, taxaw ne man a il faut que nga yëkkati ay jaasi ay yéegu mel noonu état bi toog di xool ndax loolu yëpp lii ngay gis ni euh, pom yi waa Europe yi ñu ngi koy def waaye du ñu indi ay jaasi du ñu indi ay bañ ko commencé dañ daan gis ne dañu jël ay mesures sécuritaires yoo xamee ne bu ñuy dem ci stade yi dinañ leen palper dinañ leen fouiller dégg nga ñu bàyyi naan violence bi violence bi parce que Sénégal noonu la violence bi violence bi violence bi affaire bi di gën a dem kii di dóor nit euh, nënd dara du ko ci fekk kii di ñëw di la agressé ci mbedd mi dara du lay fekk agression yi sax dañu jóg dañu gën a bare fi ñu toll nii waxtement sur le plan politique. mais man dama yi politiciens yi ñoom ñoo indi ñoom ñoo provoqué li nga xamee ne moo di violence bi nii. parce que ci ñoom lañ ko defee boole encore ak état bi parce que bu euh, sama lanc bu bu ko bu ko du ma ko yàbbi voilà euh, violence bi ñoom ñuy toog di seetaan dégg nga njëkkee ko ba démb njiitu réew mi dal di ne na ñu def le coup sifle affaire bi nag fi taxaw donc dafa am loo xamee ne xale yi il faut que ñu encadrer leen il faut que état bi delloo siwaat autorité am autorité bi mooy mën a tax ak dissuasion bi nga xamee ne prévention bi nga xamee ne moom la ñuy def dégg nga pour que agression yeeg violence bi daal di mën a wàññeeku. mais dafa am benn benn genre analyse ma des dafa mel ne léegi jeunes yi léegi dafa dañoo faatul yéen affaire faatuñu policier faatuñu gendarme ragaltuñu leen te aussi dañuy faral di gis yéen yoo xamante mooy am ci suñu euh, suñu suñu yenn ministre di ji di wane yenn arrogance est-ce que loolu loolu loolu sax ba fu mu nekk nii jeunes yi dañ naan euh, lu mën ci def dara doo ci fekk parce que euh, dëkk bi amul loi dëkk bi dëkk dëkk bi amul amul amul règlement amul dara loolu moo gën a incité violence bi gën a bëri. waaw parce que euh, gis nga ci stade yi dañuy jël benn euh, brigade ak euh, benn compagnie CRS teg ko fa. violence bi du tere ak sécurité bi nekk ci biir stade bi du tere violence bi bu ñu waree bu amee benn incident rek nga daal gis ñu damm ci ay bant ak damm ci ay siis ak yu mel noonu bu ñu paree. brigade compagnie CRS mooy nekk ci mbedd mi brigade CRS boobu nekk ci mbedd mi du tere euh, violence bi di gën a bare du fee agresseurs yi di gën a jóg ak yu mel noonu ainsi de suite c'est que gis nga euh, policiers yi dañuy war a yokk dañu amatul moyen. amuñu moyen wala ñu formation aussi. am nañu formation mais moyen la ñu amul. moyen boobu ñu am nag li nga xamee ni moo tax mbir mi sooxee moo di que ni euh, mbirum démocratie bii nga xamee ne moom la ñuy wax ndaxte léegi da ngay dem gis benn agent de police mu war a daal di corriger war a indi euh, jubbanti nit ñu daal di ko porter plainte ñu yóbbu ko tribunal condamné ko ba léegi dañuy wax ne fi nekk nii mun a toppee bu njëkk ba da ngay ñëw ne salaamaaleykum policier bu la gisee nga foog ne malaakal waxatuma ak gendarme waaye léegi keroog ba nga xamee ne jël nañu leen ba daal di leen euh, wàcce alkaati yi fii ba ko tamu Jean Collin ba léegi police dafa déprécier euh, mbirum police fi mu nekk nii ñenn kese kese kese kese ñoom ñoo fi ñoom la nit mun a di ragal mooy garde pénitentiaire garde pénitentiaire yi ngay gis nii ñoom kuñ la ci ne toogal nga toog hmm. ndaxte foofu ba tey ji nii la fa nekkoon woneegul ba léegi hmm. waaye policiers yi ko ci wax mu ne la ah ma ba ñëwee jàpp nit dégg nga ñu daal di ne la dee na fi yaa ko rey daal di yéeg yooyu indil la procès ak yéeg yooyu ba ku tax ku ci nekk rek daal di ne fi ñu toll nii sanction yi euh, nekk balaa muy ñëw <laughs> balaa muy ñëw ñu fàtte xam nga ma daw du ñàkk du ñàkk foofu lay jeexale ci ponk boobu muy li nga ma jaaroon mooy à chaque fois quand on parle de violence c'est c'est vers la vers euh, bu nekk Almadies wala wala wala yenn yenn cité yu fa ay ay que je pense que euh, yar ñi foofu ñoom ils ont autre chose à la plupart lépp dañ ko accentuer ci yenn côté yi nga xamante ni pauvreté dafa bëri euh, ci côté banlieue bi ci yi nga xamante ne fa laay fa di gis violence yi fa ñuy gis ay làmb fa la gis ay mbër fa la ñuy gis ay ay ay yen yenn yenn euh, mbiri euh, te booba léegi nit ñi indi faut passer analyse ci ci lan moo waral lépp ñu accenté ko ci côté dëkk yi ñu xam ne dañoo gën a gën a pauvre dañoo gën a dañoo gën a ne ci côté banlieue boole affaire yooyu euh, fa affaire bu ñu defee analyse xool ci yenn dëkk yu mel ne ay Almadies yu mel ne yenn quartiers yi yu mel ne ay fan fan fan euh, euh, point e, affaire yooyu doo fa di gis violence te sax ñoom sax ils n'ont le temps de de participer à ces activités yow loolu loolu ndax jàngat boobu yaa ngi koy bàyyi xel loolu mooy li nga xamee ni moom la ñuy wax politique gu gouvernement bi en fait envers la jeunesse ak gis nga acte décentralisation bi dafa waroon a mun a atténuer li nga xamee ne mooy euh, problème mu jeunesse bi ndaxte ci programme acte trois bi waroon na mun a am euh, insertion des jeunes dans la cité waaye gis nga ñu ngi dem ci local yi waaye gisoo kenn euh, ku développé programme gis nga eh, keroog maa ngi gis benn ministre mu ngi développé programme am pour Dakar boo kiyee da ngay foog ne Obama moo ñëw di kii yu mel noonu c'est parce que ni nga xamee ne liñ leen laaj la ñu deful am politique boo xamee ne yow bu état bi defee sur le plan global une politique d'insertion ak une politique de bien-être dans les cités et dans la banlier mu mun a am inter un suivi boo xamee ne dina mun a permettre ñu daal di génne la modèle du banlieusard le profil du banlieusard la banlieusard bi lan la soxla quels sont les besoins politique bi nga xamee ni war na am emploi bu emploi amee nga am sa soxla faj ko boo amee foo xamee ne da nga koy eh, kii eh, jàpp eh, da nga koy am honnêtement bu boobaa di nga gis que ni foofu la ñu waxee le profil du banlieusard le profil du banlieusard. c'est la violence dafa le profil du banlieusard euh, le nouveau profil du banlieusard dafay nekk programme boo xam ne dañ koy intégrer dans la politique d'intégration de la jeunesse dans la cité. donc d'accord fi mu nekk ni ñu sursoir toutes ces activités lu ci mel ne làmb ji lu ci mel ne li nga xamante ni moom moom moom mooy navétane ñu sursoir ko ba trouver yenn solution lañ def mën a euh, arrêter violence. mais pas du tout parce que lamb ji am na benn côté boo xamee ne euh, dina tax. ba nit ñi suñu am agressivité bi ñuy am suñ demee ba gis ñaar ñuy dóorante mën na dé euh, décongestionner un peu la violence interne c'est c'est dans les sports de combat c'est toujours euh, pareil da ngay dem Thaïlande da ngay gis ñuy def la boxe thaïlandaise ak yéeg yooyu da gis nit ñi dañuy yuuxu yuuxu yuuxu bañ ne pop suñu paree ku nekk ñi ci sa kër le problème moo di que ne défaillance bi moo di nii repression bi war a am ak dissuasion bi war a am dafa des ndaxte koo gis am na kilifa yaa ngi dégg du ñu xaar Sénégal ne dañuy xaar ba yëpp ne këtt na jonn ñu daal di soog a jóg naan dañuy sanctionné xoolal waa jooju nga xamee ni jël na euh, kii bi dóor ko waa kii bi mais waroon nañ ko jëli këram dugal ko ci kii bi en attendant parce que même bu fekkee ni kii moo ko tooñ mais moom amul droit dégg nga daal di def justice ci moi-même mais ci ci euh, justice euh, def boppam justice Euh, kii ba arme boobu mu yëkkati dóor ko waroon nañ ko jël téye ko en attendant buñ ko téye en attendant ne ñu ngi taxaw naan démocratie ñu ngi taxaw naan procédure ñu ngi taxaw naan CNG moo war a def nii moo war a def nii ak yi du mel noonu te fan lay mujjee ñun ñëpp benn lañu kii sénégaleel ak kii sénégaleel voilà la fumisterie bi nga xam ne ni ba tey jii moo tax violence bi di gën a propagé wu di gën bare ci nit ñi ak kéeg yu mel noonu et pense que état bi dina jël ay dogal ci. Macky Sall wax na ne Macky Sall coup de mais ce qui veut dire que ne euh, que ça soit la police la gendarmerie. Euh, les mesures sécuritaires yi nga xamee ne ñoo war a aar askan bi waar les euh, aar les environs des stades war nañu mun a fexe ba daal di waaye du ñu xaar ba nga xamee ne Euh, kii bi euh, affaire bi nee na këtt ne jonn ñu ne ramasse nañ cinquante quatre malfrats cinquante quatre fii kii yeeg yu mel noonu te à l'heure actuelle à l'heure actuelle je te dis que boo demee ba technopole ay agresseur nga fa taxaw di agressé nit voilà donc mu nekk loo xamante ni je pense que état bi dina jël ay lu ñeel wàllu nawetaan mais sax ba ci biir euh, école yi si biir université yi violence mi fay am dafa lu ñaaw li nga xamante ne moo amoon ca université. ba pare te dafa am lu ma la ci bëgg a wax. que gis nga agression yooyu ngay gis noonu. ñi koy def dañ leen xam bu baax waaye dañuy dëkk ci quartier te yow nga doon wax waxu banlieue dañuy dëkk ci quartier ñu xam ne kii mooy agressé démb la jógee euh, prison waa kii yu mel noonu nga daal di dëkk daal di ne du ko boole su ma ko boolee dafay am répression dafa kii man ak moom ñoo dëkk. ak kii yu mel ah, noonu kon nag ah man man ma boole sàcc moom mooy mooy kar. waaw mais ma ma da nga war a boole sàcc nag. léegi nag loolu dafa bokk ci li nga xamee ne du état bi rek dama doon bëgg wax ne affaire bi c'est un mu nga mu mu mel ni euh, kii naka lañ koy waxee euh, benn ndëpp global bu ñu war a def ndëpp national waaw ndëpp national boo xamee ne euh, kilifa yi dañuy yar seen doom yi bu ñu yaree seen doom yi ak li nga xamee ne ñoo ñuy wax naan ñu kii dëkkandoo la du ma ko dénoncé su ma ko dénoncé dafay def représailles boole ak li nga xamee ne moom la état bi di indi loolu moo mën a dindi violence bi mm-hmm. mais bu ñu demee état bi def li muy def ba pare yow nga ne doo dénoncé sàcc ce qui veut dire que ni da ngay wax pour wax rek. Hmm. dañuy wax pour wax et nous serons tous euh, complices suñu ay euh, li nga xamante ne moom mooy suñu responsabilité wàllu location yi ak euh, bailleurs yi mesures yi nga na ko am na communiqué bu ñu gërëm ak ki nga xamante ne moom mooy ministre Assome Diatta nee nañ ñu benn kii muy def au delà ci deux mois de caution ci wàllu location donc est ce que nekkul c'est juste des poudres de poudre aux yeux donc neexal Sénégalais yi nii pour suñu jëm si élection yu ni mel parce que je pense que mënuñoo jël ay mesures tëb tëb jël ay mesures alors que dajale acteurs yi nekk ci biir wàllu euh, immobilier yëpp ñu mën a xool yeen dogal lañ mën a jël. non xam nga euh, li may mën a wax rek moo di que ni propriétaire bi loué euh, dëgg la moom moo am alalam di ko mettre à la disposition di ko jaay parce que jaay ak jënd la rek mm-hmm. waaye. war na comme li ñu doon wax ci affaire violence bi noonu war na am limite boo xamee ne état bi daf ko war a réglementer loolu la état bi def nii da daan gis courtier boo xamee ne dégg nga dañuy soxor ci nit ki nga xamee ne dafay war a wut euh, dëkkuwaayam te salaire yi nekk Sénégal salaire yi nekk Sénégal yow gis nga bu ma xoolee ba gis kër yi ni leen di ak ñi nga xamee ne ñooy luwe naka la ñuy euh, débrouiller ak SMIC bi motul cinquante mille wala ci lay yem euh, defe naa SMIC bi léegi soixante mille la soixante mille dégg nga waaye bi nekk trois fois SMIC bi mu am gars yi dëkk foofu dégg nga nan lañuy defee ba dëkk ci kër jàmm nga gis ne par exemple moom it weer bu dee war na am dundam war na am lu muy dundalee jabootam ak yu mel noonu di war na am nag benn système de régulation boo xamee ne mooy réguler diggante partenariat boobu war a am ci kiy luwe ak ki ñu luwe dafa nekk nag que réew mi dafa nekk ci ay euh, euh, difficulté économique facteur économique yoo xamee ne ak euh, pouvoir d'achat bi dafa nekk te pandémie bi yokkaat ko ba nga xamee ne fi ñu toll nii euh, bu ñu réglementer affaire bi da ngay euh, pour que yow boo bëggee location nga daal di joxe ñaari weer c'est logique c'est peut-être métti waaye. mu lu mënul a ñàkk la. ndaxte ki la luwee boo fay jógee war na mën a am ci lu mu jàpp parce que nit ñi ñuy dëkkee ñun fii da ngay gis nga nekk ci ëmm ba ngay dëbb dëng dëng dëng da ngay gis que ni sa euh, waa ji da lay jox euh, siis euh, anglaise bu baax nga gis damante ko damante la waaye booy dem sax jël yi sa làmp yi daal di yéeg mel noonu moom mooy moom. Euh, dina war a mun a amaat loo xamee ne dina mun a jag-jagalaat. mais man li ma euh, jaaxal mooy état bi dañoo ne jël nañ dogal génne seen communiqué mais man gisuma benn fu ñu toog nañ ak euh, syndicat yi yor wàllu immobilier parce que loolu mënuñu xëy rek génne exiger nit ñi dara te tooguñoo ñi nga xamante ne ñoom ñooy. ma ne ba eh, eh, yooyu laaj leen lan lañ soxla ak lan mooy seen problème. Macky Sall bañ koy jël ba mu bañ koy ba mu toogee la ne woon dina indi baisse de loyer dina dugal loxoom ci biir mbirum bi. baisse de loyer te te waxoog ñoom moom seen kër. waaw mais du loolu mais c'est parce que mbir mi dafa kii la woon jungle la. Mhm. jungle la te ba léegi nii wax naa la ko léegi wax naa la ko léegi ñoom dañuy yéex sax da ngay ñëw ñu ne la joxeel 4 mois. ci loyer yoo xamee ne euh, kii la un million lañ lay laaj pour nga mun a dugg ci kër goo xamee ne euh, salle bi dafay mel ni panthère géléem sax soo ko ci dugalee baat bi génn ah. ak euh, système de construction yi nga xam ne ne foofu lañu nekk ni nga gis euh, loolu yëpp mais il faut que état bi jël responsabilité ba pare ba pare te bu njëkk ba propriétaire dañ leen dañuy laaj ñaari weer courtier yi ñëw yokk ci yeneen ñaari weer benn bi pour seen poche benn bi pour euh, mi ngay avance la benn bi pour caution benn bi pour bu ñuy séddoo ñoom mm. waaw loolu foo ko teg mais mais mais mais ba lay permettre man leen li ma jaar moom mooy nan la nan la état mënee xëy xëy rek teg ay dogalam te toogul ak ñi nga xam ne ñoom man moom sama kër moom fekkoon maa koy luy du ma tëb tëb ñu ne ma wàññil te toog waxuñu ma lu leer la laa mën def ba ba ba rek na yenn mbir. xëy xëyul rek def loolu. Ah. da nga li xew moo tax mu jël kii bi la. ah mais du ko forcer xew. Mhm. dañ koy forcer. mais est-ce que du mujjee ko kon. voilà li ma leen di waxati encore. ah bu ñu jógee. bu violence bi amee ngeen ñu bu ñuy dóor ngeen ne lu tax état bi di def ni da teg ba pare waxtaan. mais est-ce bu jëlee du bu jëlee li nga xamante ne moom mooy waa waa transport xëy xëy immobilier nañ kon kon nañ leen bëgg a exiger nañ génne nañ génne ñëpp buñ génne buñ génne ñi ñu luwee ñëpp léegi nag ñu soog a teg ay dogal bees bu war la coono la am parce que ñi ñëwee duñ nangoo génn wala ba ku génn doo am feneen foo nekk. ma ne loolu daf fi dul am. Hmm. ba ñu toogee ba loyer yi ëppee. nga gis ne Panthéré dañ koy loué ay deux cent cinquante mille Panthéré laa wax de. Mm-hmm. moto sax douze mètres carrés. ci Dakar ci Dakar gii. ci Dakar yi. ak banlieue ba ñu commencé ngay am quinze mille quinze yi di yegg quarante mille la ñu dellu si daal di ne dëkkuwaay yi nii munul passé lii munul passé lii. Mm-hmm. am na syndicat des consommateurs am na syndicat des locataires. Mm-hmm. ñoom ñëpp ñoom ñëpp da xaar lii nii démb lañ ko génne. da ngay xaar ba ci fan yi nga xool le le le l' des consommateurs lan la ñu wax ak ñi nga xamee ne lan la ñuy wax ci kii bi de parce que fan yële passé dañ doon wax état bi war nañ ci wax cadre li ñeenti kii ñeenti weer yi ñuy laaj dafa métti ay kii mel noonu institut léegi jël nañu dogal bi mais da ngay xaar nag lan la organisation des consommateurs yi di di di kii. ñu jeexal tuuti ci benn ah. benn information bu bu bu bu ñu gisaat mooy ki nga xamante ni moom mooy euh, euh, kii euh, di benn architecte bu mag bu nekk Sénégal fii yëkkati ay kàddu jëmale ko ci li nga xamante ni moom mooy suñu littoral bi ne ñu ngi salfaañe di ko jaxaj jaxaje ba di ko jaayee sax mètre carré bi plus de deux millions. Mm-hmm. donc muy Atepa. Mm-hmm. donc yow loolu ba nga ko déggee est ce que nekkul fi mu nekk nii loolu loolu alerte la pour ñu jéem ko parce que danañ wax bradage du foncier ci waa littoral bi te littoral bi joxe nañ ci ay ay ay ay ay menaces yu graaw nee nañ foofu di fa tabax sax wóorul donc mais ba léegi ñi continuer di di ko di ko saax saax saaxee di ko jaay donc loolu est ce que jotul fi nekk ni état bi jël si dogal ci ni ñuy euh, li nga xam mooy littoral bi war a sax euh, protéger li nga xamante ni mooy euh, Sénégal. xam nga architecte boobu ñuy wax Atepa xam nga mook Viviane Ndour kii mook Aby Ndour am nañ fi ay jàppante ci littoral bi occupation d'espace yi ak sol yi foofu ci littoral bi donc gis nga bu demee ba wax ne ñu ngi koy jël di ko jaay di ko baraade kooku euh, dafa nekk ci yi euh, nga xamee ne mooy aéroport bii ngay gis ni dégg nga daal di nekk loo xamee ne dégg naa euh, amaguma ci lu ma ci wóor que ni séddale nañ ko ba mu ne ba ku ci nekk xam nga fi mu ki ba ci Euh, mécaniciens yi nekkoon ci wetu ancienne piste ba sax ñu ngi leen di préparer di leen jox nañ leen sommation pour yëkkati leen dégg nga jaarale loolu dégg nga yokk li nga xamee ne mooy descos pouvoiru descos pour que ñu daal di mun a nettoyer littoral beeg euh, aéroport beeg ak yéegi mel noonu à quelle fin à quel dessein Euh, yàlla rek moo xam mais fu muy mujj ji moo di que ne di ko joxe ay promoteur ak ay kii yu mel noonu foofu lay mujj ji. donc loolu donc loolu Sénégal fu nekk nii kon du gën doole ñi nga xamante ñoom ñoom ñooy andi jafe-jafe ci waa immobilier parce que euh, li tax gars yi di investir si immobilier donc est loolu aussi bu état bi ne day andi ay dogal est ce que du nekk genre. Euh, mais non parce que état bi ci boppam moo joxe kayit yi. <laughs> ñi ñi ñi ñi tabax. état bee leen di jox ay autorisation mm. donc c'est l'occasion bi nga war a wax kay moo di que ndax état bi warul nag am un peu de regardant ci biir li nga xamee ne mooy octroi wu euh, permis de construire rek ak euh, li nga xamee ne moom lay joxe ak saax-saax yeeg yooyu de plus lébu ji lébu gi ñoom it seen toolu maam yeeg yeeg yooyu ñoom ñëpp ñu ngi nekk sur le qui-vive c'est-à-dire que c'est-à-dire que gis nga loolu dafa nekk le problème foncier dafa nekk euh, problème boo xam ne dafa jafe régler état bi ci boppam dafay bàyyi ba nga xamee ne séddu na li ñu soxla séddoo ba pare daal di soog a nag jóg nag daal di ne ah tirer sur la sonnette d'alarme ak yi mel noonu affaire bi euh, Atepa di wax du du gan ci réew mi yàgg nañ ko def dégg nga ba léegi fi ñu toll nii ñoom Karim Wade jaaroon nañu ci yooyu ba léegi fi ñu toll li nga xamee ne moo ci nekk moo di ni il faut que ñu dellusiwaat l'autorité de l'État il faudrait que le problème foncier ñu daal di toog def état généraux du foncier xam lan la ñu xam fan la jëm fi mu nekk nii dafa mel ni ñun dañuy wax rek di jeexal suñu salive waaye toujours fii ak trois ans quatre ans cinq ans. ñeenti président yi ñëwoon ci forum bi ñeenti président yooyu ànd na nañoo moom mais genn wàll gi yëpp da ngay gis dañu ñu tiire ay boule dañuy dem làqatoog tubaab bi di ñëw di euh, indi division africaine boobu Afrique mais mais wax dëgg yàlla ngir yàlla ak yonent bi Afrique ak nit ku ñuul ak africain yi ñoo mënul xam lan mooy booloo. dóorandoo bu religion bi ñëwee sax ñu daal di ne wéy ba mu neex leen ñu mbas yaa ngi dégg nit ku ñuul moo moromu nit ku ñuulam buggul kii loolu Macky la wax xam nga euh, courage la mais léegi nga gis ñu daal di ne non non non nga gis ko mu daal di delloo di ànd ak tubaab yi pour euh, jaay Sénégal. donc c'est-à-dire yëfi yëfi yëfi caméléon la ñuy def quoi. yëfu caméléon la yëfu fumier la ak yéeg mel noonu dañuy ñaan. forom bii ñu mujjoon a def ñoom Cheikh Tidiane Gadio ñoo ko fi jëkkoon a indi te boobu daawoo gis sax ay nit yu ñëw dégg ci forom yeeg yi mel noonu dellu siwaat dégg mbir mi di dem ba ñu daal di ne dañuy def G7 G5 G6 ak euh, Tchad yeeg ñoom Idriss Déby yeeg yu mel ba tey jii benn euh, forom boo xamee ne am na cinq chefs d'État mm-hmm. yu fi ñëw wala quatre chef d'État plus ay chef de gouvernement plus ay géeg yu mel noonu nga gis ampleur bii dañu ñaan yàlla unité africaine l'unité africaine mun na dal di nekk foofu bi nga xamee ni moom la Kadhafi jooy ba dee voilà donc Union africaine boobu xanaa ñu ñaan yàlla fekki ko rek man euh, morom bañ a fekk ma euh, ñibbi ginnaaw dëkk ba rek euh, donc ñu jeexalee rek suñu plateau ak li nga xamante ni mooy embouteillage bi am démb bi Dakar boo xamante def nañ man def naa trois heures temps ci yoon bi ngir mën a rallier diggante Castor gi rek jëm ci yoon bi moom mooy Thiaroye donc embouteillage bi bi Sénégal alors ko ñuy wax waxu ay BRT yu ni mel rek ay yenn affaire ak yenn menaces yi nga moo am ci syndicat éducation bi ñu tënk ko rek ci ñaari ñaari sujet yooyu ñu daal tàggatoo ak ñi ñu sànn jamono ji waaw mbirum embouteillage yi mbirum organisation la ak discipline moo koy kii ak euh, gérer rond-point yi nga xamee ne euh, ñoom ñooy euh, tax ba embouteillage yi di am Sénégal problème mu gestion de nos rond yi moom mooy kii bi noonu booleeg indiscipline bi boole ak li nga xamee ne rek mooy oto yi bare nañu dégg nga alkaati yi son dépassés dégg nga suñu rond yi ku fa ñëw bu ñu amoon euh, yar tuuti tuuti yar mu ñëlante daal di xam ne ci réewum jullit lañ nekk daal di xam ne kii sénégalais da ngay gis nga nekk ci sa oto dégg nga man xam naa ci dara da nga nga bëgg a euh, jàll mu am keneen ko jaar ci sa kaw toaw oto ñëw ne cëppeelu ci sa wet am na koo xamee ne bom bu gisee loolu daldi di ne xaaral ma koñaas ko koñaas yooyu ñuy defante ci biir kii beeg yooyu ba mbëkkante nag des fa. koñaas est nekkul indiscipline bi parce que gis ko xamante moom moom day day jéem a bi mooy bu topp ligne bi ba pare jéem jaar ci suuf jaar ci kaw loolu mooy indiscipline bi. soxoraay bi mooy nga gis ne kooku def na loolu mënuloo ko muñ ngay accélérer pour kii ba ngeen bëkkante. Hmm. loolu moo am Sénégal te foofu ñu koy defee mu daal di ñëw ba ci suñu rond yi. rond point yi la mbir yi mën a gul a te gis nga Sénégal ak ñi nga xamee ne noonu moo ci nekk moo di dañuy euh, démb maa ngi dégg euh, ki nga xamee ne mooy ministre de ministre des transports dégg nga au lieu que mu daal di muy wax ci affaire mini euh, ferra kii bi raay bi mm-hmm. mu ngi naan Dakar Bamako bi commencé nañ ko liggéey. te réglé wuñu problème circulation intérieure des personnes et des biens ci biir Sénégal defaroon raay bi ci bi diggante train bleu bi. train bleu banlieue daal di jël benn euh, cent quatre cent milliards. daal di ko teg boo xamee ne ba ñu ne vingt deux le vingt deux mais lay bëgg a dem lay bëgg daw ñu daal di ne déedéet dañ koy yóbbuwaat kii yooyu nga xamee ne du daw sax cinquante kilomètres mooy seen autorail boobu nga xamee ne. autorail bi terre boobu dégg nga jël terre bi di ko kii ba pare. di xalaat di euh, xalaat Dakar ko donc ñun ñu daal di taxaw ci embouteillage yi <laughs> di xaar encore BRT bi nga xamee ne BRT bi xëy na bu ñëwee dina mën a réglé la problème parce que moom fu muy jaar dina kii ak yooyu waaye waroon nañu jéem a régler suñu système de communication ferroviaire bi nga xamee ne moo doon train bleu bi ak yéeg yooyu di dem ba Thiès di dem ba euh, Diamniadio ak yéeg noonu loolu lañu ñu waroon a régler ba ñu daal di bloqué li nga xamee ne mooy déplacement euh, ferroviaire yooyu def ko ci benn terre boo xamee ni bés bu nekk diggante bi nit ñi xam nga lan la ñuy xalaat tey jii ñu wax ko fi moo dikkee ne BRT bi bu dawee une semaine. ndax courant yi ñu toog di di am toujours. kuy xam wala ndax dina continuer di daw. ndax duñu toog ba si yàgg dal di ne non dafa am techniquement lu ñu war a defar affaire ba taxawaat. xanaa boobaa xanaa xanaa boobaa dañuy woo Youssou Ndour mu génne beneen son rek. du ko laajee moom dañuy woo Youssou Ndour man mi maay woy. yaa way maay woy ko laajee ma dem mais ku ku man mi maay taxaw jël sama micro di woy. voilà donc kon ñu lay jaajëfal donc saa si nekk la ngay tàggatoo ak ñi sax. naa li may tàggatoo rek moo di que ne ñu ngi delluwaat di sant suñu borom. di ñaanal euh, ki nga xamee ne moo di euh, suñu président directeur général mm. dégg nga yàlla yàggal ko fi te mu wér mm. dégg di ko souhaiter nag euh, une bonne et heureuse mm. di ko wax rek ni li ci kanamam nag participation liggéey bu rëy la liggéey bu rëy la dégg nga comme niñ ko xamee rek fit ba mu ànd ba mu doon am rek ñu ñaan suñu borom gën a dëgëral fit bi ci moom pour que rek objectif yi nga xamee ne moom la ñu am ba war indi nag li nga xamee ne sax moo di suñu signal bi mhm. yooyu yëpp yàlla yombalal ñu ko ba nga mhm. xamee ne dinañu mën a indi nag un rayonnement international et international mhm. dégg nga pour mi FM donc euh, rendez-vous ce salon des startups euh, c'est qui ne fait place waaw rendez-vous euh, startup yi le 14 donc bu ko kenn manqué ñuy wax rek encore une fois ñu ngi ñaan yàlla fañ daan jaarale fa mu daan jaarale suñu mbir yi rek ak moom mu waat ko fa dégg nga di wax rek ni euh, taal bu ko yàlla taalee ba pare sànni ca matt gën fay ko rek voilà donc euh, jërë ngeen jëf da ngeen suñu papa li mu wax tey ci li xam mooy sujet yi ñu waxtaan tey jëm ci wàllu violence lutte ak euh, yi wax ci location ak bailleurs yi ak dogal yi nga xamante ne na ko waxaan tamit ci wàllu Macky Sall ci wax yi nga xamante ne yëkkati na ko kàddu am solo yoo xam ne ñëpp bàyyi nañ ko xel ci forum international bu paix ak sécurité ci Afrique wax tamit ci wàllu embouteillage dama nekkoon sujet yi nga xamante ne andi woon nañ ko tey di jaajëfal suñu ay euh, techniciens yi nga xam nekkoon ci ginnaaw ku ci mel ne Malick Momo donc leen di jaajëfal ak yéen nga xamante a ñuy euh, yeneen thème euh, di ñaan yàlla rek suñu li nga xam mooy terre bi comme ni ko waxee rek mu daw bi nga xamante ne wax nañ ko comparé ak li nga xamante ne waa Figaro yëkkati nañ ko ay kàddu muy benn information pour ñu tëjee ko muy ne terre bi daw tant que 2022 euh, jotul donc euh, jërë ngeen jëf di leen jox di daje la semaine prochaine ci yeneen thème yeneen merci beaucoup